waaw xam nga gouvernement bi daal lu ma leen dénk mooy seen train de vie yi ñoom lu doon xasee président Macky Sall. Mhm. ne dañoo bëri lu ñuy def train de vie yi cortège yi bëri na agence yi bëri na te man lu ma jaaxal bañ fi toogee ba tey gisaguma ñu suspendre agence yi ñu doon ŋàññi Macky Sall. Mhm. seen cortège yi wid wid yi tey la gën a bëri train de vie yi da nga ji ministre buy génn. wit wit yi topp ko lu doy ni man ni koy def ziar général bu ñu demee ba àgg da oto yi ni ñuy bëri loolu gis nga bu dee ay minis yi quatre oto rek doy na ko oto oto sécurité du ambulance bi doy na sëkk ñun dañoo tardé ci bëgg nguur ñun africain waykat bi nee nit ku ñuul yaa bëgg nguur mm-hmm. waykat bi way na ko nee na nit ku ñuul yaa bëgg nguur ñun dañoo bëgg nguur. Mhm. léegi euh, ñi nga xam ne dañ fi doon nekk koo ci fal dootoo ko wooti ba jot ko te du la sax xamante man yooyu dama ko compte gis nga man dund nañ ci nguuru Abdou Diouf ñoom Iba Der Thiam. Mhm. mosuñu changé domicile te ñooñ ñooy vrai ministre. Mhm. Liberté 4 gii la dëkkoon wetu courant bi la te xaloog Siga Seye Coulibaly bi dee nekkoon président Croix-Rouge nga xool ñoom Serigne Lamine Diop ministre des finance seen kër lañu mën sa dëkk ñoom Ousmane Paye ministre par socialité yooyu buñ la rommee ak Ibrahima Fall tam nekkoon Nations Unies xam du xam ko bokkoon na ci élection yi yële passé pas yi deux mille dix bi ñooñu xoolal ñooñu Ibrahima Fall bu daa ñëw Tivaouane moo nekk ko ministre de l' enseignement supérieur mooy dawalal boppam. ñun fii ban ministre nga ji muy dawalal boppam. Ibrahima Tall bu daa ñëw Tivaouane am na boo xam daa ñëw ba booru jumaa mhm. jumaa gi nekk. Mhm. seen kër fa la nekk mu ñëw gémi bi baare ko ni ko doo jàll. mun ko man fii laa dëkk xam ni kii mooy <laughs> ministre. wallaay xoolal Ibrahima xoolal mu ni ko. wóor na dama lay ñaan xam naa sa liggéey nga def man mun ko il faut nga am laissez-passer mun ko d'accord naa far yàlla def capitaine am mhm. ba bi chef am moo daw mhm. gis ko xàmme ko mhm. daal di koy tóoj Ibrahima Fall ni ko déet liggéeyam lay def kii rek daal di koy laaj turam di jël borom na relevé ko ni ko yow ku baax nga yow lii la état Sénégal soxla macha allah keroog ba mu ne ko kii mooy ministre de la république l'enseignement supérieur daa tiit moo nekkoon ministre ñoom Talla Sylla yii ba muy nekk étudiant. Talla Sylla mii gis nga pour te dire dama lay wax nii la fii laa gis cortège yoo xam ne xoolal ñu démb def ñu péeteeg gars yi dañoo bëgg nguur xoolal parti socialiste. minis yi ba ak député yi. te aussi sànq wax nga lu am solo ñoom buñ la soxlaa.

wante Abdoulaye Wade daan ñëw changé lépp cortège yu bëri moo fi jëkk a génne cortège yu bëri. <laughs> Macky Sall ñëw ni ko dandu ma. <laughs> Ousmane Sonko ñëw nekk xale bu ni ko dandu ma. Uh-huh. boo xoolee waa GIGN bépp ñëpp nga mobiliser ñu génn. Uh-huh. yooyu lan moo ko fi jar defal sa carte oto ak ambulance bi topp ci yow. Uh-huh. ak motard biy jiite bi nekk ci kanam ak bi nekk. gis nga Sénégal. feeg ñu nguur ak dépense yi day lu ñu naan ronkoo ñu baadoo la mooy siim cere yu buur baadoo mooy répété wu toog di onk rek gis nga ñi dem ci armeel yee tëdd dañoo noppal góor yaa ngi fi sonn ba sonn sonn te deewuñu dunduñu man daal li ma dénk nañ nañuy xalaat nit ñi nit ñi sonn nañ nit ñi sonn nañ jomaay na xalaat yaa nga dëkk ñaga ñaaw xam nga ci village du ko département du ko ci kaw ga nga dëkk ñaga ñaaw ci àll ba xam nga ni moom yaa gën a xam ñàkk jël nga fi sare daaw bay xam li ci coono baissel prix yii Senelec yii ba baadoole yi mën cee jot facture yi nga seetaat ko ndox yeeg courant yi ndax ñun bëggoon nañu dem ba indiwoon woon contrat bi Macky Sall defoon pour si géej gi ñu ciy naan. léegi contrat boobu dagg nañ ko boobu nga xam tey ndox géej gi lañu def ba ba buñ ko ko néew. day baax c'est Sénégal ñun daal gis nga homme d'état billaay rata nañ ko si jamonoy Abdou Diouf homme d'état xoolal léegi député yi boo la gisee doo leen xàmmee. Mm-hmm. comme ay yalwaankat. Mm-hmm. boo gisee ministre léegi. amuñu safuñu jumbo safuñu xorom man ni laurier bu njëkk ministre day am personnalité <laughs> wante fii laa gis ci nguur Abdoulaye ba ci nguur Macky Sall hmm. ministre yi dañ koo safaan ministre nañuy xalaat lu dul tabax ay kër rek gis nga samaay nañuy dimbale néew doole yi baa doole yi sonn hmm. te ku nekk nag ah, immeuble yi doo ko dugal ci bàmmeel hmm. li ngay dimbale nit ñi mooy dem sa compte li ngay dimbale nit ñi yor sa alal gi milliards yi dee leen ko génne di dimbale nit ñi. factures yi courant yi cher nañ ndox yi cher nañ. dund yi cher nañ. dund bi moom de terre kilo neuf cent. soble mille francs loolu nga teg ko fan. Ah, ah? yow léegi boo ci kanam da nga naan da ngay grève soble te mënoo ko grève eh, ndax togg foo jaar mu am soble. te jël état seen nañuy jël Sénégal yi mobiliser jëf ay bitig référence ci quartier yi. Mhm. jox ko doomu réew mi ñi jaay ministre commerce loolu dama la koy ñaan. Ah. étranger yi gandu yeewi bëy jël nañ étranger yëpp jox leen suñ ko te amuñu fi benn njëriñ étranger yi ñu benn njëriñ ñu yor commerce Sénégal bi boo kër gu ñuy dëkk kër gu benn kër ñetti jabar benn néeg ñetti jabar. étranger yi laa yu yor commerce yi amuluñ Sénégal njëriñ nañ it état jël jox Sénégalais yi commerce bi def boutique ay référence tudd ko xama boutique beneen ni koy tudd tudd ko ci boutique di quartier mhm. jox ko Sénégalais yi étudiants yi nga xam ni au ñuy dem ci gaal yi di dem géej bii ay ñu nañ naa la projet ñu jël gunge la état la comme ay na ñu jàppale ci xale ñu ubbi bitig référence xale yi tam nañ jaay sa marchand ambulant nga woo ko ni ko kaay léegi nga ci biti bi mbedd mi ak trottoir da da da ngay da ngay may dem ñi defal étude de projet lii lañ la bëgg a jàppale mu defal ko quartier yi Sénégal yépp mu am ay boutique de référence ñu jox ko doomu réew mi bu boobaa commerçant yi mhm. bu boobaa ñoom dinañ jël soble yi di ko jox réew wante étranger yi ñoo jël yépp sénégalais yi nag toog boo xa ñaay yàlla baax na sénégal pays jolog la man de du ma jologee gan <laughs> waaw sénégal pays jolog man daal sama mbokk sénégalais laa bëgg moom laa nooyee <laughs> man non man dama li nekk sama xol man damaa bëgg sénégal mhm. bëgg baax sénégal mhm. étranger yi bëgguñ mhm. te bu ñu ci ñu réew di xas sa réew nga toog di ànd ak ñoom man de benn étranger neexuma macha <laughs> <laughs> macha allah papa li nga wax am na solo loolu parce que nag euh, béy ci sa wewu tànk li ñuy demee euh, ñi nekk étranger ñu leen di dox liggéey bi nga xamante ne moo nekk fii ñu jox ko doomu réew bi moo gën te gouvernement Sénégal nag li ñu leen di ñaan papa papa wax na ko sànq li ñu leen di ñaan mooy ngeen dimbali nit ñi ci coupure courant. ci coupure ndox woyofal yi ngeen gën ko woyofal ndax fi mu nekk nii tuddatul woyofal tàngala la tudd parce que ñi nga xamante ne euh, affaire bi dafa metti woon si ñoom ñoom ñoo demoon wuti woyofal waaye dégg ngeen euh, wax ji sànq. nee nañu boo ci génnee dootoo dugg di facture. ah bon. waaw boo génnee nii ci. boo génnee facture ba demaat ci woyofal facture ba dem ci woyofal bëgg ci delloo dañuy bañ. mënoo génn woyofal demaat ci facture. ñoom ah, xoolal employé yi ñu doon jël. ñoo amatul xam nga dafa am privé yi yoroon facture yi li wër. Eh, ñi doon relever eh, facture kër yi. Mhm. du ñu ay agence dafa am beneen société bu gagné contrat bi mooy ñooy du ay agence Senelec mhm. ay sous-traitant lañ. dafa am benn service bu gagné loolu loolu. waaw sous-traitant la. Mhm. ñoom dañu nekk seen biir retraité. ñu jox la contrat ba nga jël say booy yaa ngi courant ak yooyu ñuy relever nga def ay agence Senelec du ñu ay yooyu nag. xam na ni at yi mujj yi dix ans yeeg cinq ans yëpp compteur waaye fa la ñuy def. Mm-hmm. ak bâtiment ku ubbi bâtiment yëpp yow xam nga li ma. Mm-hmm. bâtiment yu bees yëpp compteur waaye fa nga am du am facture. ah doy na waar. papa li nga wax doy na waar parce que tamit kon bu dee lool la ñuy dugg woyofal mënatuñ cee génn kon nag gouvernement bi liñ leen di ñaan rek ngeen gën a woyofal affaire yi te indi naataange ci biir réew mi ndax metti na fi mu nekk nii muy courant muy ndox ñëpp a ko soxla warul di ñàkk ci suñu réew kon nag dañ leen di ñaan ngeen gën ñoo taxawu ci boobu fànn l'émission nag tire à sa fin boobuy jeex sax du neex a tàggatoo parce que waxtaan bi day neex lool lool lool ay idées yu am solo ñoo fi génn macha allah yaay Ndeye ak mbokk <laughs>